Et la loi d'amnistie, monsieur le ministre Vous étiez pour, contre je n'ai, Moi, je vais être honnête. Moi, je n'ai pas les, les, les, les soubassements, mm -hmm. les explications de cette loi. Mais sur un plan moral Avec tout ce qui s'est passé Je sais que ça s'est passé partout, mais j'avoue que moi, euh, euh, par exemple, il ne faut pas que ça soit une à l'impunité. quand même il y a eu des choses graves qui sont là Très nous grave. avons eu notamment des forces de défense et de sécurité qui ont été difficilement exposées notre justice des magistrats qui ont fait leur job et cetera mais moo tax ma sànq ma ne yaa a de des yoo xam ne man leer na ma ni euh, li ko li ko li li en tout cas li pousse président mu dem ci loolu mhm. waruñu ko xeeb xëy na ëllëgee bu ñu xamee lépp lañu gën a mën a comprendre tey dañuy wax ni rek ci wàllu principe wala ci gisin mais président boo xam ne tey quel intérêt il y a man je vous pose la question quel est l'intérêt du président de la République de prendre de telles choses moi je suis membre de son gouvernement je n'ai besoin d'aucune protection je le dis ici face au Sénégal et je sais que la plupart de mes collègues comme ça donc bu ñu ko yóbbee foofu on se trompe mhm. d'accord li mu def lépp nii pas pas pacification boobu moo xam ne dem na ba mu jaral ko mu ne ñëw leen ngeen toog waxtaan mooy li wax sànq lu ngeen d'accord ma proposer ko conseil constitutionnel bu d'accord ñu dem ci mais je pense que démocratie en tout un démocrate mënul weesu loolu ci koo xam ni yow la ñu jox lenge nga mën a def mënoon na toog rek waa ji bi mu waxee mu jël décret